ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu su ngeen gisee jataay bi da ngeen xam ne waajtaayu màggaluk laylatu xadar gi soxna Maymunta Mbakke bintu Xaadimu Rasuul daan taxawal waaye xam ngeen ne bis boobu balaa daan am daana ko waajtaaye lu am solo muy seetal dëkkub Seexul Xadim bii ci njiital sëriñ Moodu Maxfuus Mbakke moom soxna Maymunta Mbakke ak sëriñ Ca Awa Balla waaye soxna Astu Mbakke moom soxna Baali ak sëriñ Ca Gaynde Fatma ñu ànd ak seen rakk seen doom di jëwriñ liggéey bi di sëriñ Abdoulahad mbak ibnu sëriñ Ca Amadu Mbakke Gaynde mu taxawu ko ànd ak njaboot gi yëpp waaye ànd ko nag ak mboolem taalibi Serigne Touba yi ñu war a seetal bisu Serigne Touba bii. balekat yi Touba yëpp a ngi nii muy kuréel yi nga xam ne dañoo jóg ngir liggéeyal Serigne Touba ci seetal dëkkam bii. li nu tax a teew fii waxtu jëmm yi waxtu ngeen gisee jëmm yi rek yi toog ngeen leen xoolee ci ci ci ci ci ci écran bi rek xam ne ñii ñooy liggéeykat Serigne Touba yi nga xam ne saabu bu sëñ bi soxlaa dëkk bi set ñoom lay woo. ñooy jataay yi ngeen seen jëmm yi yëpp ku ngeen di gis da xam ne jëwriñ la joo xam ne ma nga jógee ci ab quartier ñëw teewal fi teewal fa njaboot ko kon nag sëriñ bi li muy wax dafa wax ne liggéey bii de keroog ba mu ko tàmbalee booba rëyutoon ndax ñu néew rek la woon wax leen ko ne damaa bëgg liggéey soxna may bii ñu yaatal ko ci njaboot sëñ tubaa gi an loola mooy lan mooy bëggatuma rek ñu bale ko soxna may gi rek bàyyi dëkk bi damaa bëgg lum néew néew néew nañ nañ wër penc yi nga xam ne ñoo sa ci jumaa ji ba bañu dem asaleem ñu bale ko loolu nag bañ ko tàmbalee ba léegi day gën a yokk ren jii nag la waxaat ne dafa bëgg mu gën a yaatu ngir liggéey Sëriñ Tuubaa bu ñëw tey dafa war a war a gàcceel ba weesu woon kon sëriñ bi neex na mu ngi woo mbooleem njabootu Sëriñ Tuubaa gi te loolu bay bàyyiwu ci góor bàyyiwu ci jigéen mbooleem ñi nga xam ne ñoo jiite daayira yi fu ñu mën a nekk ci biir dëkk bi muy daayireb góor ñi wala daayireb jigéen ñi muy association yi fu mu fi mën a nekk ci dëkk bi rek ñu bañ a wax ne soxna si nekkatu fi rek liggéey bi dafa wàññiku moom dafa fas yéene takkaat ndiggam laxasaayu ànd ak soxna su mi nga xam ñoo nekk ci kër gi fas yéene topp seen ginnaaw ni jaay muy sëñ Modou Mahfouss liggéeyal Sëriñ Tuubaa kenn ku ci ne gis ne dëkk bi set na noo xam ne mos a seetlu mel noonu li ren li ñu gën a bëgg kat mooy dañoo bëgg mu gàtt ndax ajuma la taseel te ajuma xam nga ne kii bi dañuy julli ci ajuma dañoo bëgg balaa midi rek lépp set ñu daje asalem sëriñ bi ñaan ma sëriñ bi moom léppam taalibe yi ñoo ñoo yor jëf ji yéene jëf ji nga xam ne moom la njabootu sëñ Tuubaa gi moom lañ ci yéenee taalibe yi taalibe yi saa su ñu ngi firndeel li waral lépp lu ñuy jëf jiital leen ci loolee nag ba mu jotee sëñ sëñ Modou Mahfous mi nga xam ne moo fi nekk moo leen fi wutu tey ànd koog Astu Mbàkke ak sëñ Cheikh Abdou Mbàkke mii ci biir kër gi ñoom itam ñu yaatalaat liggéey bi delloowaat ko taalibe yi la leen ci war ñu delloo leen ko wax ne mbale mi nga xam ne moom la bëgg ñu di ko jiital ci liggéey bi nekk na Alaaji Baara waxee woon ne nga màggalu Tuubaa daa bëggati balaa nañ bale dëkk bi noonee lañ bëgg ñoom itam fa soo bañ ko tàmbalee léegi tey ñu defaat ci yaatal goo xam ne bii dañoo bëgg ñëpp muy góor muy jigéen maa ngi koy tàmbalee ci marché Ocass gi nga xam ne Sini Dieng mi mooy jëwriñ ji mi ngi nii sama gannaaw ak mbooloo mi ci marché bi di ci boolee ñawkat yi nga xam ne ak fuñ fi mën a nekk nga xam ne ñoo ngi dégg sama kàddu maa ngi leen ci soññi liggéeyal Serigne Touba nag la Serigne Modou Amin ta waxoon rek jaajëf june ne murit ju la taw jaajëf moo la ëpp tawféex ko koy may nag mooy jaajëf ju ñëw mu jàpp ne ca la mbiram di defaroo. xam ngeen ne doomu aadama li mu war a jëkk def lu mu mën di doon mu di si jiital ak cet doog def la sa topp moo tax nag saa bu leerul xadar di jub Cheikh Abdou Lahad Bali dina ànd ak mboolem njaboot gi yëpp si ndigalal magam Cheikh Mourou foos woo mbooleem eh, acteurs yi nga xëy ne ñoo yore ci wàllu googu wàllu mbale mi ñu daje fii si këram gii ñu santaane ñu àndandoo nun ñëpp ci ndigalal mu Mountakha dem li saytu dëkk bi bale ko ba mu set laataa genn gan di tàbbi si biir dëkk bi ci kaw loole nag ñuy waxe si ay ñetti kàddu genn kàddu gi mooy muy mat Matlabul Fawzayni bi nga xam ne ci lañ bokk te ma yore wàllu communication ba te Serigne Abdoulaye Ndam jiite ko Serigne bi mi ngi wax ne fépp foo xamante ne ab daayira nekk na fi wala sellir bu mën di doon mi ngi woo ñëpp si mbayeen ñoom ñëpp nañu daje si fii te la sa gën nag Serigne bi nee na koor la ñu nekk koor kenn xaaru ndekki kenn defaru dara kenn ku nekk boo xamante ne xëdd nga na nga daa def sa waajtaay teel a ñëw ci kër soxna may gii ci jumaa ji ñu tàmbali liggéey bi bala moo naaj liggéey bi àgg la sa des képp koo xam ne yaa ngi dégg sama kaddu si kaddoog soxna ma Isa Mbàkke ahlu café mi ne moom kenn ku ne xam ne taxawaayam ci mbalem Tuubaa moo mooy wax loon na fépp foo xam ne sellur ahlu café nekk na bi ak biti dëkk bi nee na lay lay bëgg-bëggam te di ko santaane mooy nanu fajar fekk fii si kër soxna may gii si biir jumaa ji bu ëllëg bu ñu àggee sa bis boobee ñu teel a xëy bale dëkk bi na mu ko bëggee ñu amee ko sëñ bi am la mu bëgg ñu am la ñu bëgg la si doole ko mooy kuréelu soppee maam Cheikh Ibrahima Fall te sëriñ Matar Ndiaye jiite ko ku tudd Cheikh Rafal nag si ab liggéey liggéey boobu mën na si am na yaakaar ñoom itam ñu ngi soññee fépp xëy na na fa ko liggéey jar na ko Pastef boobu mën a liggéey ba am lii mu liggéey yàlla na sëñ Touba dugal sa biir liggéey boobee kon ñi ngi wax ci turu kaddu Baye Birane ak Baye Talla Diop nga xam ne ci lëggeel Serigne Touba rek lañ leen xam muy guddi muy muy muy muy bëccëg ñu jaar ci seen i tànk di soññee nag bu baax di soññee góor ak jigéen mag ak ak ndaw waaye di soññee association yi nga xam si ne ñoo féete li tàmbalee Guédé Surra ak Lóyen ba Baxdaat ba Kellal ba Touba Belal ñu ngi leen di soññi ci mbale min daan bale kër Soxna May ñu leen di wax nag ndigal jógati na kon nag am ko ci xamoo ko ñàkk ko ci xam ko da koo gën kon ndokk bi ñu ko amee bi ñu ko Serigne Touba boole la lëggéey nag Serigne Touba moom mooy lëggéeyal nit waaye nit du ni man man maay lëggéeyal Serigne Touba waaye ñu koy sant ñi nga xam si ne ñoom lañ ko daa àndal ñu diñ ci soññi di ak Xaarim Diop mi nga si ne moom moo jiite association Benno ak ku ci mel ne Sawru Guèye ak Abdoulaye Diop ak Issa Sarr ak ak Mbaye Seye mais toog ak ñi ak Xaarim Diop mu ndaw nga xam si ne ñoom ñëpp taxaw nañ taxaw nañ fii fa fas yéene mbale ma comme ni ñu ko waxee ndax dañoo wax ni dañoo bëgg ñu gën koo yokk fa nga xam si ne ñu fa àgg nañ fa àgg kon nag amati nañ beneen ndigal bu dolleeku nañ ko jëfe nag nu nañ ko daan jëfe yaakaar naa dañ ñu daan jox midi waaye ñun onze heures wala dix heures nangam daanañu fekk àggal kon nag lëggeel Serigne Touba amul tànk ginnaaw tànk kanam ca ab ñu ci waaye dugg rek noonu nga cay tooyee kon na ngeen xam ne soññee mooy bu ñu xëddee bu kenn tëddaat ci ab lal ndax kuy nelaw ko da xam sa ëllëg nan la mel te jàpp na ni lëggeel Serigne Touba la lëggeel Cheikhul Khadim mooy tax suñu ëllëg jag ñu ngi soññee ci tur Daaru Minam gépp a xayra gi nga xam dañoo boole suñu bopp def kuréelu waajal mbale màggal Tuubaa lañ tuddee suñ kuréel gi nga xam ne dem na ci ñaar ak juróom-ñaar dem ci juróom-ñaar kuréelu mbale ak juróom-benn kon ci turu ñooñu laay waxee ak turu délégué de bi ñu àndal muy Cheikh Modou Kane ci seen tur waxee maam di wax ne liggéey bu ñu mës a woote kenn mënu leen ci kuréel waajal mbale màggal Tuubaa bu leen kenn jiitu ci liggéey bi fajar bu ñu xëddee nañ daje ce buntu marché ca buntu bayal ba buñ euh, sama buntu place buñ fa dajee oto yi danañu fekk ñu ànd ak mbooloo yii liggéey ndax ay gor dong lañ as gor nag ku ko mos a lebal teranga day naan yàlla naa dund ba ba mën laa fay teranga yi te kenn ku ne xam ne Sëriñ Tuubaa lebal nañ teranga ñoo xam ne mënuñu koo fay kon li ñu ko mën a fayee mooy bu ndigal jógee nan la xasaay ñun ñëpp sax ci digal yi ba jéggi jaajëf ji ñu teew fii ci teewaayu fédération Ithaadu Atbaa'il Xadim li taxawuni wa tamasuki bi diinil xawim bi nga xam ne sëriñ Cheikh Amadou Mbacke Gaïndé Fatma moo ko sos waaye teew fi itam ci ndigalul sëriñ Cheikh Diop Kellel mi nga xam ni moo jiite section Touba waaye jiite sous section village Sën teew fi ci ndigalul soxna Ndeye Fatma Mbacke moom sëriñ Cheikh Amadou Mbacke Gaïndé Fatma ak soxna Faati Xariloo mi jiite wilaya Fam bépp ci biir Touba. ñu wax ni bu bis baa nga génn boo xëddee bul laalaat sab lal nga génn ñu daje ci pencum daaru xuddoos àndandoo dajale mbalit mi xaar oto yi ñu aj ko ci continuer dox wuti asalem fépp fu ñu mboola mi fekk ñu ànd ak moom nee na bëgguñu kenn des bëgguñu kenn manqué bëgg nañ lépp loo xamante bi ni Serigne Touba digle woon na ko ci setal dëkk bi nee na bu ci kenn ëppalee membre fédération Ittihad al Bayyil Khadim ca loolu li koy maye mooy am pas-pas am fulla am fayda teel a jóg wu si woote bi ngir ñu mën cee jariñu di wax ci turu soxna Astou Mbacké sëñ Abdoulaye borom dër bi nee na bu jàppoon fukk dana jàpp ñaar fukk di sant ñi fi dajee ñëpp di woo mbokki Mbacké Mbacké bi nee na soxna Njóoba Mbàkke soxna waalo ak soxna maam Marème ni ñu ko daan defee rek bu bis ba jotee ñu teel a ñëw am pësteef nga xam ne balaa naaj ñu bale ko ba mu set wecc te mbooloo mi ànd nga xam ne fu ñu rob mu set nee mi ngi leen sant bu baax te xam ne dem ci daan taxawee dina taxawee nu ko raw. kon day mel ni mbale mii nga xam ni sëriñ bi yéene ne ko ci nga xam ni dafa bëgg balaa ñu yegg ci bis bi ni ko sëriñ Bay saar waxee léegi Cheikh Mouhamadou Bara ne woon bala ñu yeggati ci màggal gi dëkk bépp na set moom it xalaat boobu la sëriñ Cheikh Abdoul Ahad Mbacké moom sëriñ Gaynde sëriñ Cheikh Gaynde Fatma di jëwriñu liggéey bii wéttali ko magam ju tedd jii di soxna su Mbacké ak waajuram wu tedd wii di sëñ Modou Mahfouz ñuy yeesal di dundalaat maanaam yéene ju nga xam ne seen maam ji amoon na ko muy soxna Maymunatu ànd bàyyi woon lépp ci seen waajuroo soxna Baali mu di ko taxawe yéene ju mag jooje la ñu amaat bëgg a taxaw seetal dëkki ba mu set wicc bala ñu egg ci bisub bisub bisub bisub bisub màggal ga mu mel ni nag mbale mii ren dafa dajante ak ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru mais yemoo ak fukki fan ak juróom-ñett ci weeru koor gi muy ajjuma ajjuma nag dëkk bii dafa baaxoo maanaam bitim bitig yi du ñu ubbi ouvrier yi du ubbi seen atelier oto yi sax du dem ca kàmb ya kon mu mel ni xéewal googa di tawféex googa lépp soxna si dañu ko yembalal ci liggéey bii ci yéene bi nga xam ne sëriñ bi am na ko ci ñun taalibe yi muy lan seetal dëkk bu tedd bi taalibe nag yaakaar naa ni fu ndigal jube maanaam jëfe rekk la war waane ruxsa gi mi ñu defal ba yombal ñu loolu lépp nag war nañoo gën a soññaat ba nii ko jëw jëwriñ yi waxee maanaam kenn ku ci ne ku xëdd bul tëddaatub lal daalal di dàkk ëtt bii di kër soxna may dàkkaat penc mii di pencum Serigne tubaa li wër jumaa ji këri xalifa yi Serigne Touba yi continuer daaru xuddoos dàkki HLM ga nga xam ne moom la ñuy wàccee mu mel ni loolu it ni ñu ko waxee daayira yi ci ëpp yëpp nañu daje si fii ci xolub dëkk bi ñu tàmbalee fi ña dëkk Gédé dëkk sura dëkke Touba Jéemul dëkke Touba Forage ñoom nañu dàkke HLM lañ fa daan def xam nañu ko lu fay paftan nañ ko dindi lu fay mbalit nañ ko dindi ay oto dana fa nekk ay pelle dana fa nekk ba lépp dana yemb kon mu mel ni yéene ji nga xam ni sëriñ bi am na ko ci ñun ñun tamit yéene jooju nañu ko ful nañu koy fule mooy jëf te yàlla tax jëf delloo njukkal soxna si jëf delloo njukkal njabootam gu tedd gi nga xam ne yéene nañu yiw wii nañu soññ daayira yi kenn ku ne ña nga nekkal soññ leen kuréeli jigéen ñi ñeenu nekkal nañ leen soññ association yi kenn ku ne ña nga bokkal nanga leen soññ ndax liggéey bi moom yomb na lool mbooloo mi mi ngi fi mbooloom Serigne Touba la kon jëwriñ yii nga xam ni moom la ñu doon loo nañu ko matale nañ koy matale mooy ñi nga xam ne moom la àndal nañ leen soññ wax leen leen sëriñ bi nii la ko bëggee bu ko defee yaakaar naa ni lépp dana sotti sëriñ bi mu ne mi ngi woo waa UGC bi nekk Touba te jonn jiite ko ak ñi ma àndal ñëpp ci jumtukaay yi ak oto yi waaye di woo commune Touba Serigne Abdou Lahad Ka jiite ko ak liñ daan jàpp ci mbale mi waaye di woo waa conseil local de la jeunesse te Serigne euh, Pape Niass jiite ko moom it ak mboolem jeunes yi nekk ci Touba yëpp ak association yi nekk Touba yëpp. fii ci gaar bu ndaw di association bi nekk gaar bu ndaw ñoomit it ñu ngi leen di woo di woo mboolem nekk ku yëngu ci mbale. di woo mboolem ku yëngu ci mbale moo xam mu ne ci administration bi moo xam mu nekk ci euh, local bi ñëpp ñu ngi leen di woo xam ne daal liggéey Serigne Touba la mboolem fédération bi comme ni ko Serigne moo Gueye waxee tàmbalee ci kaw ba ci suuf. ci njiital Serigne Moussa Mbacke moom Serigne Cheikh Gaynde Fatma ba ci wilaya jeune bi Serigne Cheikh Mbacke m Serigne Mbacke son la jiite ñëpp fooy mën nekk diggante Taïf Mbacke Touba Diourbel ñëpp ñi ngi leen di woo ndax ñii di woote ñooy wilaya muy soxna Assou Mbacke bokk ci relation extérieure bu wilaya waaye soxna Serigne Cheikh Abdou Mbacke mi nga xam ne moo jiite éducation culture bu wilaya national bi bu wootee kon kenn ku bokk ci fédération wër te des kon ñi ngi leen di woo ci bis bi di la 24 ci weeru tubaab waaye yemook fukki fan ak juróom-ñett ci weeru wolof ñi ngi sant ñëpp di ñaan yàlla nañu ko teewee nag ñu kenn baña a manqué soxna Bali Mbakke yàlla na suñu borom yokk ay leeram te taan ci barkeem Serigne Modou Mahfouz soxna Astou Serigne Jaxabdu Bali yàlla na suñu borom guddal seenu fan ak mboolem jëriñ yàlla nañu àndal yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. laylatul qadri xayrun min alfi shahr ليلة القدر خير من ألف شهر